tukki bii sëriñ bi demoon ci géej gi kenn ku ne xam na ne ak tooñ moo ko sabab ak tooñ moo ko sabab ndax ku ne xam na ne sëriñ bi lañ ko waxal ca tubaab yi lépp defu ko kañ présenté foofu bokkut ak sëriñ bi waaye ñam ko seqal dañoo yor dooley àdduna te mën a tooñ mën a jeng moo tax ñu jaar ak moom foofu ñu jaar ak moom daal di koy génne réew mi ba noppi droit yi nga xam ne sax am na ko yépp ñu futti ko sànni futti droit yooyu sànni waaye yàlla moom bu ñëpp seetaanoon ku ñuy toll it yàlla dimbale kuy toll moom ndax nit ñi nag seen Cheikh Gaynde Fatma yàlla na suñu borom yokk ko ay gërëm ak leer ndax daan wax nit ñi lépp loo xam ne woo nañ la ca ne nañ ko am na nga ca amub tey ba mu des rek nañ fax daw nañ fax daw moom suñ la ko waxee nee na toppal ci ñoom ndax ña ngay daw di wuti ñoom ci digg la ci ku moom seen cheikh sëriñ bi ku ne xam na ne boo gisee circonstances yi ñu ko génnee réew mi ak sabab yi tubaab yi wax ne moo waral ñu génne ko te dara amu ja li nga xam ne tooñ bu metti la tooñ nañ ko tooñ njabootam tooñ ay taalibeem tooñ ay soppeem usuuri xala wal ahlu an ni li matxi alladi an hurmatihi qasiru wax jooju ko liñ ko waaye ñun ñu nekk ak njabootam lu nu metti la te defe naa bu yoon doon dox ci àddina si kon tey ñi ko defoon loolu danañu leen topp ba jëlaat suñu yàq waaye nag alhamdulilah bi ñu yàlla wartalee tooñ boobu ci ndimbal li ñu am tey nga xam ne lépp sopp ko na nekk ak cant sëriñ bi tërale ko noo xam ne kenn xalaatatul fay kenn xalaatatul fay waaye ñëpp sant la ñuy ne lii bu amutoon lii bu amutoon waaye ñu mën a cee jàng yëpp ni ma ko waxoon démb mujj ab tooñkat ab tooñkat foo ko fekk rek mën naa yor doole lool mën naa ne ca kaw lool mën naa defee ne bidon bu mu bës rek bu waxee yàlla yàlla wuy ko waaye nag sunu borom daa am wax ci alxuraan mat a bàyyi xel wala taxsabanna allaha gaafilan amma yaamalu zaalimuun innama yuaxiruhum li yawmin tashxasu fihi l absaar muhtiina muqnicii ruusihim laa yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawaa yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam buñ jot mukk ne sunu borom daa sàggan ci tooñkat yi mel ni ku leen fàtte mel ni ku leen bàyyi ñu def lu leen neex déedéet da leen di xaare rek da leen di xaare benn bis boo xam ne bu ñëwee tiitaange day jàpp nit ñi ba seen bët yi day xulliku bis penc noonu la nit ñi mel noonu la ñuy ñoom ñépp ña ngay gaaw sëggal seeni bopp kenn du ci raf mel ni amatuñu ay xol seen xol yi ab air la